ma def ko nim ko bëggee te jullit yëpp ak murit yëpp ànd koog moom barke Sëriñ Tuubaa ñu ngi nuyu mboolem waa daal yëpp di leen ziyaara di leen baal xaq di leen baal ñaan suñu borom subhanahu wa taala ñu jéggal di leen wax asalaamullahi aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñaan suñu kàddu fekk leen ci jàmm bu ko defee di leen ziyaara bu baax ci waxtu yu sell yu tedd yu mag yi nga xam ne ci lañ dugg muy weeru tabaski di weeru dul xijja ñaan suñu borom mu defal ñu ci tawfiq defal ñu ci taysiir ak saadatu daarayni xam na waxtaan wi ñuy waxtaan tey day jëm ci maanaam al Iidul Adha te moo di tabaski waaye njëkk loolu dañuy am laytaay bu gàtt boo xam des na ko def ci fan yi nga xam ne moom lañ dugg ni nga xam ne dañ koy tudde al layaalul asri hmm, maanaam sunu borom subhanahu wa taala ci tànnam eh, allahu yastafi min al malaikati rasula wa min an nas ba aji jeex sunu borom subhanahu wa taala day tànn aw gaay ci aw nitam noonu lay tànnee ay dëkk noonu lay tànnee ay bis noonu lay tànnee ay ay guddi ni mu tànnee weeru koor mu gën ci mbeeru mboolem weer yi mu tànn màkkatal mukarrama mu gën ci mboolem dëkk yi mu tànn bisu aljumaa mu gën ci mboolem bis yi noonu yi la tànne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gën ci mboolem nit ñi noonu yi nag la tànne maanaam weeru zil xijja mu bokk ci al ashurul xurum mooy weer yi nga xam ne ñu ne warmaal waaye fukki fanam yi bokk ci fukki fan yi nga xam ne moo gën ci at mi ba ci leen ci borom xam dañuy wax ne ndax fukki fan yi ak fukki fan yi mujj ci weeru koor yéen moo gën bañ ci am ay wuute kon fukki fan yi fukki fan yu am solo la ndax fukki fan yi mujj ci weeru koor su mboro subhanahu wa lim ci dale mooy xetqun minan naari mooy góor sawra kon nag buñ koy tëkkalee fukki fan yi fukki fan yu am solo la suñu borom subhanahu wa taala dafa wax ne wadkurullaha fi ayaamin maadudat dee leen tudd yàlla ci bis limu yi bis yooyu nag dañuy wax ne fan yii la ci jublu it mu waxan ne fi ayaamin maalumaat ci ay bis yu ñu xam wala yu ñu màndargal dañuy wax ne bis yooyu it fukki fan yi la ci jublu نكون موجين في القرآن وحني والفجر وليالي العصر والصفع والوتر ما نام دا جنتي فجر جنتي ليالي العصر ما يفك دي منك نكون لما دوح لينا الأشهر الحرم ما يبيرين حمد لينا ورمال سبحان الله إن عدة الشهور عند الله إثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حروب yenti weer yoo xam ne dañ leen a warmaal arab yi tënk ko ci du xijjatin du qiadatin muharramu wa rajabul fardi suhurul xurum mooy du xijja weer wiñ nag ak du qiada ak muharram ak rayb yenti weer yooyu dañ ko warmaaloon ba arab yi sax daawuñ ci xeex te lu sunu Boroom subhaana taala wax ci alxuraan mooy wa man yuasim xurumatillah fa huwa xayrun lah xurum yàlla ci ko warmaal wala yàlla warmaal ko ko magal lolu mo gën kon ñing ci fatali suñu sunu di lañ ci fatali fatali gi nak li yonent sallallahu alayhi wasallam inna faati dhikra njariñ mi ngi nekk ci fatali ab jullit nak bu démé ba mbolem admi mi yëpp yem ci mom lolu ak tuskara la lay waral ku ne xamna na ne julleeg jàngal ak jang xasida ak zikkar duñ ko diglé ci mbolem jamono yëpp waye nak da am bis yo xamni ne subhanahu wa taala da caa gën feddali loolu julli bu ne ko na koy nattaale di ko xam waaw ndaxte oma xalatul jinna wal insa illa li yaabuduni binu ma leen dul ak jaamu maa uridu minhum min risqin ay yaxumuni bëgguma ngeen leel ma bëgguma ngeen jox ma wërsëg gannaaw nag jaamu la ñuy def loolu nañ ci góorgóorlu bu baax a baax a baax kon ñu ngi ci fàtte suñu bopp ku ci mën def istixfaar lu bare bari baax na tahlil wax laa ilaha illallah takbir wax allahu akbar alhamdulilah lu ci waaye mën rek jàng alquran ak xasida woor surtout nag juróom-ñeent fan yu njëkk yi ñu bari bari dañuy dàkk bisu muharram ba wala yow mu arafa ba di woor waaye ku mën a woor juróom-ñeenti fan yëpp maanaam fa huwa afdal moo gën kon ñu ci soñ suñu bopp di soñ mboolem jullit ñëpp yàlla nañu ci yàlla defal tawfiq defal ak tasiir kon bu ko defee ñu ñëw ci maanaam tabaski ak la ko waral ak xar yaag na muy demee incha allah tabaski nag buñ ko waxee dañuy njëkk ñëw ci lan moo ko waral lan moo waral tabaski daa am yonent bu ñu doon wax Ibrahim Seydina Ibrahim alayhi salaam mu amoon doom ji ñuy wax Ismaahil sunu borom subhaanahu wa taala dogal mu tëdd guddi gént sunu boroom ne ko nanga nga rey sa doom ji ñu bëree bëri da ngay dégg nag ñuy koy woyeefal daanu naan loo xam ne ci gént la jóge nangam loolu ak réer diine la nañ bàyyi yu mel noonu ab julli dafa war fonk diine waaye naan ay nangam ay gént la jóge ay nangam di di woyeefal yu bëree bëri ngir bëgg a màggal leen loolu dañ ciy bàyyi xel bu baax a baax a baax. xam ni ab yónnante day ko xam ne suñu borom subhanahu wa taala moo ko yónni te ñoom lépp luñ tëdd gént gis ko loolee seen borom subhanahu wa taala digal la naka noonu bi ñu tëddee gëdd guddi gént suñu borom ni ko na nga doom de Ismaayil te doom jooju da ko ñaa nekkoon di ko ñaan lu yàgg te yàlla may koon bi ko amee suñu borom digal ko mu rey ko mu xëy wax ko doom ji doom ji nekk ku dégg ndigal ne ko yaa abati f'al maa tu'mar satajiduni ne ko yow yow sama baay na nga def lii la yàlla digal da danga fekk ma bokk ci way muñ yi loolu lañ cee jàng mooy nit ku ne war naa fonk ndigalul yàlla nit nekk war naa fonk ndigalul yàlla waaye doom ju nekk it war naa topp ndigalul way juróom topp ndigalul way juróom wa qadaa rabbuka allaa ta'budu illaa iyyaahu bil waalidayni ihsaana la alquran mooy kul yàlla waaye na ngeen rafetal jëme seen yaari way jur kon loolu mën na si nekk ci yàlla jànge bi loolu amee bi mu ko waxee loolu ba bis ba jot mu tër ko ngir rendi ko waaye su mboo subhaanahu wa taala wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid seen buumi xol ni mu leen jegee ñun yàlla ñoo leen gën a jegee noonu bi mu ko tëree ba war su mboo subhaanahu wa taala fa dee naa bi azim mu daal di koy wuutal wala wattee am xar mu duuf maa xam ne wax nañu aljanna la jóge sëñ Tuubaa wax ne isjumihal xayru fil ittibaa'i mboolem yiw yëpp mi ngi ci topp ndigal waaye nag is jumi xa sarru fil ibtidaa mboolem topp mboolem ay yëpp mi ngi ci topp bidaa kon boo gisee Seydina Ibrahim bi mu toppee ndigalu yàlla ndigal bu jugee fa mu war a jugee lor mënu caa topp wala fi dañaa wax ne ku sax ci ndigal des na la teral waaye képp koo xam ne saxoo ci ndigal des na la tëru toroxal la te dañuy wax ne ndigal lëndëmuk maanaam fajar la lu mu gën a yàgg day gën a leer waaye lu dul ndigal lëndamuk tàkkusaan la lu mu gën a yàgg day gën a lëndam kon loolu ñu bàyyi xel bu baax loolu wax nañ ni bu fekkoon yàlla daa dogal maanaam ñu rey doom jooju Ismaayil kon day doon sunna ci at mi jot ñuy nit ki waaye lool nag jànge ba tey it suñu borom subhaana wa taala ni mu fonkee bakkanu doomu aadama nim ñu binde bind mboolem xayawanaar yi li ci ëpp mu dagal na ko ci ñun man ko jàpp sam moroomu jaam ni yow yor bakkan ni yow nga mën koo tër rendi ko toog lekk ko te amoo ci bàkkaar loolu suñu bopp subhanahu wa taala ñun o ko defal kon loolu war nañ si jàngee ni ñu gën a fonkaat suñu bopp xam ne suñu bopp subhanahu wa taala teral nañu wala xad karam naa bani aadama wa xamalnaahum na lbarri walbahri wa razaqnaahum min at-tayyibaati wa fadalnaahum ala kathirin mimman xalaqnaa tafdila kon bu ko defee nag ñu ñëw ci jëmmi tabaski kan la war baat boobu dañ koy jëfandikoo waye lu dul farata rek daanaka duñ mën a wax ne diw faaw da koo war waaye day sunna du farata sunna mu akkada la sunna mu akkada ko waxee mooy sunna su dëgër lool joo xam ne bu ko aw gaay maase woon duñ ko def baa ñu tere ko ci ab dëkk dañuy bokk am bàkkaar waaye nag sunna su far la ci ku ko mën def ko ki war nag mooy koo xam ne am na lum ko jënde te du am gàllankooru dundu ginnaaw bu mu jëndee tabaski moom ba noppi tey jii ñuy la xar mi ñeen fukki jinn lay jar nga jëne ko ñeen fukki jinn te bu suba bu sa soxna imbi won wala mu am man ordonnance mëno ko faj wala bu courant bi ñewon suba suba suba te jëne nga taxar mëno fi mëno fay courant bi wala bu ndox mi ñewon suba te jëne nga xar mi mëno fay ndox mi koku tabaski ko tabaski waru ko kon da nga koy da ngay nekk koo xam bo boo ci loru ndax yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra yàlla sunu borom subhanahu wa taala ak jàppandal la bëgg ci yéen waaye bëggul ak jafe kon kooku ñu bàyyi xel bu baax a baax kooku nag moo xam góor la ki nga xam ne am na ko moo xam góor la wala jigéen la wala gone la wala mag la wala ab miskin la wala ab jirim la te moom maanaam sunna su far la ci moom mu ko waaye bu fekkee ne yii ma wax daa gàllankoor yii ma wax daa ak ku mën na doon teggil nañ ko ko du farata ci wala du ko du ko jar kon eh, loolu moo ci li ci jiitu bu ko defee nag ñu ñëw kon ci lan la war a tabaski ci lan la war a tabaski tabaski borom xam-xam yi dañuy wax ne am xar moo ca gën xar ma mu góor moo ca gën mu nekk moo xam ne mucc na ci sikki yi ñuy bëgg a wax mooy feebarul raggul pattul gumbawul gimiñam xeeñul lool geen ba boo ko defee ñetti xaaj benn xaaj ba dëggu dëgguñu ko buñ ko xasee dagg nga xam boo ko natee sulus ba ñetteelu xaaj ba day dem bu waa du mat am tabaski na nekk xar moo xam ne it béjjën ba demul bay naaj ba day naaj du mat am tabaski naka noonu nekk moo xam ne it maanaam nekkul koo xam ne day soox soox bu fes boo xam ne ba ay moroomam moroom yaraw ko bu ci loolu amee rek dootuma tabaski bu ñu laa nag maanaam maanaam maanaam maanaam euh, nekkul xar moo xam ne dafa muuma xar moom mbee la baaxoo bu fekkee ne def ko rek am na jàngoro jooju fatt bi bu dee gis la baaxoo bu ko deful rek am na jàngoro jooju kon jàngoro jooju yooyu bu dajee ci moom du du maanaam du gën kon faaw mu mucc ci jàngoro yooy ñu xam ne li suñu borom subhanahu wa taala ci alxuraan mooy lan yanaala llaaha luhuumuhaa wala dimaahuhaa walakin yanaaluhaa taqwa mooy suñu borom bëggul yàpp yi wala deret ji waaye lam ci soxla mooy ak ragal ci yéen wa taala la yonent <coughs> yàlla dafa te lu nangu lu dul lu teey kon lépp lu ñu jëmle ci moom daa war a nekk loo xam lu mucc xayib lay doon kon xar moom moom lañ gën a taamu xam ne nag wax nañ ni xar mu góor moo xam ne tàppuñu ko waaye nag daa ràgg nga gis xar mu góor mu góor moo xam ne dañ koo tàpp mu duuf mu duuf moom moom lañ gënale ci kaw mu ràgg moom boo ko defee boo amit xar mu góor nga wut xar mu jigéen xar moom nag lañ sarte ci moom mooy na am at ba dugg ci atum ñaar ñaareel ma donte benn fan la boo amul xar nga wuti bay bëy woowu na nekk wu góor waxam mucc na ci ayib yooyu ñu njëkk wax ci xar bu ko defee bu fekkee ni amoo bëy wu góor nga wut bëy wu jigéen bëy woo wax nañu ne am ñaari at naam at ba dugg ci atum ñaareel ma dugg gu fés dugg gu fés a fés am ci weer mbaa ñaari weer boo amul bëy nag nga wuti nag nagu góor moo gën boo mucc ayib yooyu ñu wax boo ko amul nga am nagu jigéen nag woowu nag wax nañ ne am dugg ci atum ñetteel ma boo amul nag nga wuti gileem gileem moomu na am juróomi at mbaa ñeenti atam yu wóor kon da ngay xool ne suñu borom subhanahu la taala bu doon aw yàpp rek lañ ci wut mbaa nangam mën naa njëkk gileem waaye nag eh, seetuñ ci loolu kon loolu ñu bàyyi xel bu baax a baax a baax kon loolu leer na la ci li aju ci wàllum xar yi ak wàllu bëy yu demee noonu kon loolu ñu bàyyi xel bu baax ñu wax nag ndax aw gaay mën nañoo bokk aw am eh, kër ñeenti nit ñuy leen xar mi ñeent fukki junni leen ñu koy jaaye ñu ne ku nekk ci ñoom la joxe fukki junni ngir ñu jënd am xar loolu borom xam ne dañuy wax ne bu ñu ko defee amuñu am nañu yàpp waaye amuñu tabaski kon dañuy wax ne mën nañoo bokk aw yiw waaye mën nañu bokk maanaam am njëkk loolu nag mën nañu ko defal seen bàyyi mbaa keneen ku leen soob jënd am xar jox ko waaye ñoom seen bii nag duñ ko sañ yow nga xam ne yaay borom kër gi it sañ ngaa jënd menn xar am ñoo ci yóbbaale waaye yóbbaale googu yi sart yi na ci daje moy ñinga yobal na fekk say bokk lañ wala nga dëkk ak ñoom bokk ci nga dëkk ak ñoom andal ak nga yo seen war dundal sattu yoy na na mat nga man leen yóbbaale ca xarma ana na borom xam yu koy lim na naan buñu wess juroom ñaar yi demé non ay lool dal lu ci mata baye xel la ñu bëree bëri nak mm, lu melni ne soxna tabaski sa soxna eh, ñu bëri tam nañ ko nekkul lo xamni l'islam du ko diglé tay ji bo fekke ni manam mënoo ko waxuñ la faa nga sa sa soxna si am xar ndàngam sàngam te ñu bare nga ci xeex ak xuloo yu demee te loolu islam digle ko waaye nag bu fekkoon ne mën nga ko mën ngaa jëndal sa soxna am tabaski da nga gis nag ñoo xam ne ay jigéen lañu dañuy yar ay tabaski ba tabaski gu jot ñu jaay ko te ñoom duñ am leen luñ tabaski ta loolu gënul dañ xam ne ni ko ni ni waree ñi góor ñi noonu la waree ci ñoom kon loolu ñu bàyyi xel bu baax. bu ko defee ñu xam ne tabaski ñetti fan la fukk ak benn fukk fukk benn fukk ñaar maanaam koo xam ne amul am xar ci bis fukkeel bi wala am xaram dafa rëccoon mën na ko rey ci bis fukk ak benneel ba ñaar ci fukk ak ñaareel waaye nag dañuy sopp fi suba jotee ba tisbaar jot waaye bisu fukk ñetteel ba ku ca amul am xar ba fi fukk ak ñetteel ba jant bu so déewee nag jàmm allah bu ko defee nag ñu ñëw ci wàllum nañ koy raye ak ye ca aju ñu ngi jéglu bu baax nañ koy lewetale ak ye ca ki nga xam ne moo jënd xar mi bu fekkee ni mën na koo lewetalal boppam moo ci gën bu fekkee mënu koo lewetal na jox koo xam ne diineem doy na ko mu lewetal ko waaye bul jox koo xam ne tey jii ñu doon sa un million bi dénk ko mu leen la bokk dénk mu lekk ko mbaa sa kër ñi dénk leen ko ca sam xar sa jam ya bu ko def loo dana gis nag ñuy lewet maanaam nga wax ki diw na ko lewetal ma xar mi ngay jàpp ci ndigla ak yu demee noonu loolu lislaam ba tey diglewu ko dañuy bëgg rek nga teew fa ñu xam ne yaa koy def loo kii lewetal it bëgguñu rek ngay jël am xar di ci kaw rek dóor ci suuf teel gi fa waaye teel du ko dégg lu mat a wattandiku la ndaxte ak rafetal su mboro du ko digle rawatina ci bàyyi may dañuy bëgg nga yor ko ndànk jàpp ko tër ko ndànk lewetal ko tal dang koy lewetal na ñëw paaka wala ñëw sim nañ lool it nga am ñaari xal wala ñett teur men di ko lewetal yere ñaari mbaa ñett yi taxaw di la xol loolu lu ñaaw ñaaw la dañ koy watani ko baax baax dañuy bëgg nga laq yenn yi ba lewetal mi so a lewetal ma ci des gis nañ it bu ñuy rendi xar nga gis dere ja am ñukoy jël di ko laal seen jë yi demee non loolu ñu xam dere deret da mo mas fo dafa nek sobe deret jooju ka koy rendi sax bu ko laalee daa war daa war da ko war raxas soo ko julleeg moom bu dee nag day fees deret ja ci biir moom moom maye nañ ko waaye ñu bàyyi xel bu baax a baax beneen bi mooy ñu xam ne rendi góor bu fekkee mën na ko baax na jigéen bu fekkee mën na ko baax na ñu taamul sunu sunu diina ji jigéen di rendi waaye ren jigéen de maanaam day rendi loolu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax yàppoo nag dees ko jaay der ba dees ko jaay ki lay feesal it bu fekkee dañ koo baaxoo woon a fayee lu mel ne ab baat mbaa tànk it bu ko ko fayee ci àpp yi na nga ko fayee xaalis boo koy may nga may ko ci mbaa ngay nga boy saraxe nga sarax ko ci bu ñëwee dees ko jaay it bu doon koo xam ne yàlla daa dogal moo amul am tabaski ku nekk wut yàpp ñëw jox ko ba yàpp woon nar yàq ci loxoom mbaa mu bari lool moom sañes na koo jaay waaye kii am xaram moom sañ du jël ci yàpp di ci xel baax bu dee lu mel ni maanaam tibbale yi ñu ciy tibbale ak maye yi loolu nag lu la ndax dëgëral ak bokk la dëgëral ànd la loolu kii la waaye nag lu mel ni ay jaay ak yu demee noonu moom loolu moom dañ ko ciy wattandiku kon loolu bokk na ci yi nga xam ne maanaam ci mbiri tabaski la aju ñu xam ne ak jaamu yàlla la sunu borom subhaanahu wa taala moo ko digle ci képp ko xam mën na ko mu rafetal ko te jib maanaam bu koy defee ni ci am yéene jaam yàlla ndax yéene ñu bare bare dañ koy fàtte te moom mooy mooy moo mooy jir ci lépp lépp lay defee ci am yéene su mboo subhaana taala nangul la ko ko defee da nga ci am tuyaaba am ci aw yàpp waaye nag bu fekkee yéene woo ci ak defoo am aw yàpp rek waaye nag loola eh, eh, mm, yéene ji mu ci am waxtu wi ñu ko war a mooy waxtu bi nga xam ne julli nañ ca juleekaay ba ñaw koo xam ne maanaam fa mu dëkk daa sori ak imaam lool ba mënta julli ji bu ko neexee mën naa nattale wax ne suñu imaam dix heures nangam la daan julli fii ni ko dem war naa rey am xaram nga nattale bu ko defee nga daal nga daal rendi kooku moom may nañ ko waaye nag bëgguñ ñu julli di xutba noppeegun nga eh, eh, jugee ci xutba ngeen njëkkante ngi waa ngir njëkkaro yeeg nangam képp koo xam ne njëkk nga rey sa imaam sam tabaski amoo am tabaski am ko yàpp amoo am tabaski loolu ñu bàyyi ci xel bu baax teewlu xutba yi ba nga soog a dellu sa daal rey sopp nañu bis boobu koo xëy nga woor ko ba julli ba ñëw te booy doog nga dogee ci xaar mi incha allah kon lool daal bokk na ci yi nga xam ne ci tabaski gi la aju eh, ñu war nañ ko leeral incha allahu taala kon bu ko defee ñu ngi wàcce foofu suñu kàddu di ñaan sun borom subhanahu wa taala mu defal ñu ak dégg ak toog ak jëriñu ci daraja yonent bi sallallahu alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama tasliman fak fan yu am solo yi nga xam ne ci lañ nekk mboolem ci ab jaam jaamu sun borom subhanahu wa taala yàlla na sun borom subhanahu wa taala nangu te ful ko làq ko fa nga xam ne yàq yeggu ya fa waaw ñu ngi nah, ci soññee bu baax a baax ku nekk ci ñun boo déggoon ñu tey ji da ngay jënd crédit ñu la tey de bonus am 1000 pour 100 da ngay profité ngir jënd ngir mën ngaa toog lu yàgg te doo mën جهل كبير من خبر نك وقت وين تقول آه، نون لا دم من جاء بالعسنات فلو عسرنا مسالي على سبحان سبحان الله آخر كيف كو خم جهنا بين بعض نكو فلو بمي آه، فكوي با من نكو فلو بمي تيمير با أجلس جني كو يالنا يال دخل توفيق يالنا يال سام تجفسلنا ما ينك جاء من هنا نقول نك ربنا لا تزق قلوبنا بعد إسالي لنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلي على النبي وسلم واقلبي عاجل كل مسلم وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته